lii lii ma yor nii benn ñaar ñett ñeent juróom benn bu ne ñaar fukki junni la muy téeméeri junni téeméeri junni yii ak rajo bii nga xam ne lépp luy mbind mi sëñ Tuubaa jàngale def naa ci carré bu 32 giga mi ngi nii xam naa ne boo moytuwul moom boo moytuwul sëñ tawa lañ koy jox rek <laughs> lu fi sëñ Mabé bàyyi woon dolliwaat nañ ca lépp a ngi nii dara man kii mm. dara du naaw dara du réer mm. mi ngi ci kaw asamaaw si tamit mm. mi ngi nii ak téeméeri junni yi daara yi may jàngal ci at ci kaw asamaaw si te ñu bari lool whatsapp yi xaalis baa ngi nii babi laay xaalis baa ngi nii te ñu bari lool ñaar fukki daara yeeg benn bu waxtu wi jotee dama leen di wax ku ne indi la mu am ñu dajale ko ëpp na lii sax waaye ci la ñu sol essence. Hmm. ci lanu ñu gën a waaj daal jëkkal waaj mi. Hmm. mi ngi nii yaa ko moom yaa nu ne baa ba nu ne bàyyil. sunu addi yaa ngi nii. ci anniversaire bis bi bu doon milliard fii lañ koy indi bu doon million yow lañ koy jox. Hmm. lu nu am yaa yaa nu ne baa ba nu ne bàyyil. lu nu am yow. ginnaaw loolu. ñetti oto yi Awa Ndiaye duy na mat leen ndox mbàkke mbàkke yeeg yëpp la ñuy doge suba mm-hmm. Awa Ndiaye duy na ñetti oto yëpp mat leen ak ñam yu bakkane yoo xam ne mm-hmm. ak yamuy war a àndal ndox yaag jus yaag liminaat yaag lépp mm-hmm. dina mat lu lu bari bari kenn ku ne nañ la tegal sa palaat boo xam ne la def ne war a nekk na ca ne Awa ngi ne defar moo ko def toppatoo ginnaaw loolu doomi Awa Ndiaye ñu wax ëmmëri téeméeri junni la joxe asaka mu ne naa ko séddale waa sew buntu kër yëpp waa ngaa ci bunt kër yëpp kenn ku ne kenn du rate ñëpp fay am mi ngi nii xaaj baa ngi boo ko boolee téeméeri junni yooyu yii ak téeméeri junni yee nga xam ne ëpp na ko te la awa njaay def ko te di aw ñam mu jëm ca ndogu ya ak téeméeri junni yii jóge ci sama buntu kër muy ibra fatim lépp yaa moom lu nu fi def yaa moom lépp daal noonu ko def ngir yàlla ak yonente bi fas yéene buñ ko gënee man di ko ma gën a def ñetteel ba mm-hmm. Awa Ndiaye mais mm-hmm. doom jooju joxe téeméeri junni yi dañu war koo séddale seew ak ngàcc fépp buntu kër yëpp ay am mm-hmm. doom jooju nee na ko euh, euh, ren bu soobee yàlla. Hmm. day dem màkk awa nga ne toog nga ñaanal ko day dem màkk ren bu soobee yàlla. Hmm. doomam jooju di ëmb moo ko yóbbu. bu hmm. soobee yàlla versi na versi na ah, ko waxoon nga ko waxoon nga ko keroog nga dogoo. nga ne ah màkk ma nga ne keroog si hôpital bi bi ñu indee ndox ñu ko bàyyi. Ah.